xol taraw galaas gu def lem atakay tabakati géeram du moo ne ci saaxol taraw Cheikh Abdou Bali juddu juddu baare yi jikkoom rafet mu farlu maanu di sellal te diina masu koo takay tabakati geeram du moona ci saakol Cheikh Abdou Bali ta noppi ta njaxlaf wayaf ta diis bari kartal lewat na wex na ta xeexul takay tabakati geeram du moona ci saakol Cheikh Abdou sëtu borom daaro ku tey ta noppi ta njaxlaf waya fa ta diis bari kartan lewat na wex na ta xeexul ta kay ta baakati geeram du moo ne ci saaxol Seex Baali ku mel ni jant ci leeral ku mel ni jant ci tooyal xolub jullit di ko naatal takañ tabaakati géeram na ci saaxol doomi Seex Mbàkke ku mel ni gaynde ci aw fit doomi Serigne Seex Mbàkke ku mel ni gaynde ci aw fit doomi Serigne Seex Mbàkke ku mel ni gaynde ci aw fit ta farlu ta ràññee ta fonku nit di ko jox cër ta kay ta baakati geeram na ci saaxol Seex Abdu Baali bu laambi diina ji saajoon Seex Abdu bu laambi diina ji saajoon bu laambi diina ji saajoon Seex Abdu Baali bu laambi mbakke na mat nga bari karatan di door di songu di gërbal takañ tabakati geeram saxab na ci saa xol taram saxab du xanaa mañal gudd aw fal saxab du baali xanaa mañal gudd aw fal gama ku dëggi waru sak wuyaatu yaag ñi nga àndal te yàlla dolli la xeewal gëm ak wér ak dëggi war a sàkk Seex Abdu xanaa ma ñaan gudd aw fan Mbakke xanaa ma ñaan gudd aw fan Mbakke xanaa ma ñaan gudd aw fan Seex Abdu Baali xanaa ma ñaan gudd aw fan satub borom daaro xanaa ma ñaan gudd aw fan satub Seex Mustafa xanaa ma ñaan gudd aw fan domis taxu na may xanaa ma ñaan gudd aw fan mbake gëma ku wér ak dëggi wu yaatu yaa nga àndal mbake te yàlla dolli la xéewal gëma ku dëggi wërsëg Seex Abdu Baali ku déglu woon la mu lay wax te léegi diina ji daarax ku maytuwul dugg ci mpax nga xam ni kii du ko lay naxtale diina ji daarax ku may Cheikh Abdou Bali ku déglu woon la lay wax mbakatale gi diina ji daarax ku may tuwul dugg ci mpax nga xam ni kii du ko lay naxtale diina ji daarax ku may kon bëggub dërëm taxu maye way bëggub dërëm taxu maye way ma di wutuma te yàlla na ma cër na dese saa takay tabakati jeeram Cheikh Abdoulaye xam ne ku ko yaakaar yal na nga dajeeg moom ndeysaan waaye Cheikh Abdoulaye xam ne ku ko yaakaar yal na nga dajeeg moom waaw